Thank you. matal mooy li ma daal sax daf may dal asalaamaaleykum Sénégal war ngër këpp maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di delloo ñëpp njukkal kom ni ma koy defee rek saa ne dina wax ne nag tey xam naa da ngeen ne waa ndaw si fu ma demati tey tey nag maa ngi teeru bi teeru bi nag xam nga li ma fi indi mariage mariage bi laa fi jël mariage bi nag madame Sarr mooy def mariage am moom laa jël sama mama Fall di sama sang boobu nga xamante ne mama tey raf la dëgg du neex léegi nag ma bëgg na ngeen dugg rek ngeen ñëw ñu xool salle bi dëgg du neex ba ci kanam ah ayca léegi nag ginnaaw ba ma jógee ci biti nag dugg naa nag ci salle bi salle bi nag mu ngi nii xam naa ne nag fii moom fii dina toj kii ñii di faalee ni ak jaañeen ni ak gayeen ni nag ayca affaire bi commencé gul bu ci kanamee rek ñëw waraat leen affaire bi nu muy demee dëgg du neex ca kon ba ci kanam leen ko waxee woon rek RTV du ay fo du ay tiaxan référence dañu wax deug du neex RTV reference ñak abonné ci sama scène bi nak heureul ki ngini service libre la lu neex waaye def amul yemal fi amul togal fi xana fallu sar maurice Mama Fall dal mo fi tak top ma rek ye ay way nak man fi ma na ro gaañoo ngi nii fii laa nar a gaañoo <laughs> sama seytane ngi nii yow ñom attaay ak ñom ñami suukar yu saf-saf yi ni ay waay man tey man tey lu ma war a def waaye amul problème naa dem ci biir toog ba ci kanam ba affaire yi commencé dem dikk du ko yàq. waa ay ca comme ni ma leen ko doon waxee rek tey nag bis bi dama cee gis koo xamante ne nii moom bis bi du ci silib du ci tubéy du ci caaya kese mbabal 15 la ci muy magam waaw muy Mati Fall madame Ba mu ànd ak nag doomu ndayam doomu ndayam nekk nii korkëre si kor ñàpp moo ngi nii ñoom ñaar du ñu ñaar du ñu ñett benn nit lañu. mais doom day wax nga ko nee nga du ma ci silib caay ju laa ci. wuy ma est-ce que xam nga ne da ngaa sàjji da ngaa sàjji mooy da ngaa sañsee macha allah laf cat. merci merci borom bés bee ko laaj. waa kati ay lii tamit lan la nii. léegi nag yow bis bi loo ci xam yow da ngaa sañse de da ngaa sàjji biir. ñëw rek euh, daal di soutenir suñu petite voilà. Euh, bis bi bu na gën a rafet gën a nice rek. merci beaucoup kat dégg naa la nga. Cheikh Ndiaye di sama rakk di sama doom nday xale yaa ngi nit ñi yëpp samay doomi nijaay lañu ay rakkam lañu waaye nii ngeen def xale yi sàjj ngeen da ngeen a sañse piir kon baax na baax na. waaye ah, loo leen wax loo leen wax seen mag ji nag maman Fall. maman Fall si mag bi moom dafa baax ndeysaan. saan koy waxee rek xale yaa ngi noonu bés du tuuti nag. bés du tuuti boroom lay tollool dëgg du neex lii du ay fo du ay caaxaan ay caa ci kanam waaw ay ca mu ngi noonu sama sang baa ngi noonu di doog a si nii tamit wuy lii ci limousine xale bi dafa féroce de baa ko yónent bi doomu Amadou Fall jaa ngi nii foofa toj wuy lii waaw wax amul dara xewul si daf may dal coono dal dal mooy li dal man de li ma dal mooy daf may dal mel ni ku ko ragal daf may dal wante li ma dal mooy du ma dimbali toog naa di waxtaan bés maag samay waay téléphone bi sonné muy moom ma daal di daw mel ni ku ko ragal daf may dal wante li ma dal mooy du ma dimbali Jangan jànga ne mbay seen baay waaye soxna Mbodj ni wooye dongal ah gis borom dindi sama waaj Serigne Fallou nga tudd Serigne Fallou Sarr kon ni ma comme ni ma ko waxee woon sànq rek tey teeru bi dafa ba zéro du neex yaayu Mama Fall ngi nii yaayu ñoom Fallou Sarr ngi ak ma bëggoon na waxtaan ak ñoom nag tey tey ci bis bi dëgg neex waaye nag balaa ma wax ak kenn damay njëkk a wax ak yaayu mama Fall ak yaayu Fallu saar ndax coolu coolu ñoom la dëgg du neex ah dañoo teral sama sang bi waaye nag jar na ko xale bi jar na ay milliards ndax jongo na dafa jongo ma ba périmé dëgg du neex doomu sama nijaay Amadou Fall jaa ngi noonu ak sama yumpaañ sali aaw dëgg du neex lii du ay foo Fallu noo gisee bis bi bis bi neex na de ah macha allah tabaarkalla ñaan yàlla tàmbalee bisimilah rahmaani rahim yegg ci alhamdulilahi rabil alamina di ñaanal yàlla sunu ñaari doom bii di Fallou Sarr ak Mama Fall seen sëy bi yàlla naka yàlla boole ca sëy barkeel yi boole ka ca sëy ya ca aras ñaan yàlla def si njaboot gu barkeel ñëpp fekke kontaan lool si bi di sant nag sali aaw di ko ñaanal wér ak fan gudd di ñaanal Amadou Fall wér gu yaram ak fan wu gudd di ñaanal sama bopp ak yéen ñii ak papay Fallou Sarr wér gu yaram ak fan gudd kontaan ci bis bi nag yal nañu tàmbale ci bisimilah rahmaani rahiim eggale ci alhamdulilah rabbil alamin càkkoo càkkanam yàlla doolu xéwal gi doolu sutura si waaw kay merci beaucoup yaay booy sama xarit tudd Abigéen danoo yàgg dañoo bokk génération dañoo yàgg moo tax su ma tee yàlla andee bañ teew ci bis bii foog dafa war a toog sama wet te ku am nitu tey nitu démb tax ndax ñuy wax kii sama nitu démb la muy abi géen nag xam ci mariage sama sang bi sant yàlla rek suñ borom bi ñu sant bu baax ndax dañoo fekke démb fekke tey dañoo fekke démb fekke tey fekk ba tóor ni mu sëyee ak ni mu jàppee ay doomam ñu naw ko naw ko lool ci bëgg njaboot ak taxawu njaboot ak taxawu borom këram ak rekle ñu naw ko ci di ànd nag boobu ba léegi soppeekuwul benn yoon ba tóor lekkul dara bàyyi ma du xew la dara te tooguma ci wetam ma ko ci sant di ko ñaaneel yàlla lépp lu mu sonnoon démb yàlla nay noflaayam tey yàlla na fekk teraanga njabootam yëpp te njabootam yàlla nañu dund te barkeel ak koñ ko bokkal. maa ngi ñaanal nag uh, tantay Fallou Sarr ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sëñ Mbaye Sarr muy soxna Maguette gay ak soxna Bali Mbacke soxna Maguette gay waroon naa teew waaye dafa am empêchement soxna Bali nag xam naa dana ñëw mais bu ñëwul it muy noonu rek bu ñëwul it xam ni mi ngi ci biir ñoom ñëpp rek di leen ñaanal wér ak fanu gudd ñu fekkee lépp si njaboot gi. ak ay magam ak ay rakam ak ñëpp ñëpp fekkee. waaw kon ni ma ko waxee woon rek ba tey pareegu ma rek ay xaritu Fallou Sarr a ngi nii ay magam ay rakam ak ay magam ay magam ay magam ñu ngi nuy toog waaw kay léegi nag ma leen doon laaj ñoom lu ñu xam ci mariage man nag si yow laay njëkkee. Fallou Sarr li ñu xam ci moom ak baax la ak euh, mu convier ñu ci euh, feetam bu muy organiser benn diine pour euh, ay mbokkam ay am di jàmmam ñu ñëw bokk loolu rafetlu nañ ko bu baax a baax. Euh, mariage bi ñu ngi koy ñaanal suñ borom def ci xéwal gu kawe njortam soxna si yaru na baax na yaatu na ñu ngi ñaan yàlla motali lépp. Euh, kon nag bu amee lu toll nii ñu ñëw daje fi ay am di jàmmam kon wax ci lu baax lu baax lu jëmale ko ci moom day rafet. Euh, mbaaxam nag mënees na cay commencé di ci wax waaye doo xam kañ ngay jeexal ndax euh, du duñu ay xaritam duñu ay rakam ay magam lañu ñoo bokk ak moom lépp bokk ak moom tamit fa ñuy liggéeyee waaye xamaluñ ko dara lu ñaaw lu rafet rek lañ ko xamal macha allah ñi ngi ñaan suñ borom mottali lépp te rafet nañ ci njort bu baax a baax balaa déwén na ñu waat fii naan nañ jëm ca ngéntal la yàlla na ko suñ borom. ji nañu teraanga ji nañu lu ne su neexu rek suñ la. lu mu bëgg rek daañu ko def allah su néew rek suñu échec la waaw. est-ce que xam man yéen laay wër xam nga dëgg du neex doo leen ay foo ci mim réew. ngeen ñu dolli jox leen. dégg li xale bi nag da koo jar de. comme ni leen ko doon waxee rek. waa ba tey rek ñu ngi nii ci mariage maman Fall bi dëgg du neex ndax li ma leen di wax chaque jour rek maman Fall du ay foo Fallu jëkkëram du ay foo. tey nag instant bi maa ngi nii toog ñoo xamante ne ay magam lañu. ak ay ak ay jabaram ñoo xamante ne nii ay njëkk la si ñoom ñu ngi nii toog kii nag mooy sama jeeg bi nga xamante ne nii ba mu méttee ba mu neex ba tey mu ngi toog puusul paasul te yàlla na fi yàlla gën a toog yàlla na gën a riij. kontaan ci rek mariage bi daal defal lu kontaan si bég si ah kontaan nañ daal kontaan lañ mën a wax waaw kontaan nañ bu baax macha allah di ko ñaanal yàlla mu am ci ay njaboot gu barkeel njaboot gu barkeel ba ñëpp fek fekk saar ku baax la dëgg yàlla maman sama chéri sama xarit waaw. yow nga nekk ku baax seen kii bii nag moom yàlla nekk ay télé RTV yàlla dem ba nekk ay télé télé télé télé waaw kontaan nañ ci yéen seen liggéey nice na. merci beaucoup sama jeeg bi li nga wax rafetlu naa ko trop ma lay ñaanal nag lépp loo xamante ne jur nga ko ci kër gi rek yàlla na barkeel. daayim faal daayim faal muy magu nag mama faal mu baax lool macha allah mën a accueillir gan baax bay bëgg a dee macha allah mu ngi nii waaw kay daayim. mariage bi loo ci xam sa mariage su rakk ji loo ci xam. bon sama mariage su rakk donc euh, d'ailleurs damay nuyo di di di contane ci opportunité bi nga ma jox pour me prononcer par rapport à ça. parce que maman sama rak la sama xarit la donc euh, moi je pense que li mo am euh, d'une chance c'est une mérite bon lo xamantene ni la yalla suñu borom moko dogal ci digantem ak serignam muy sëñ Fallou sar ma leen di ñaanal rek yàlla barkeel seen sëy bi yàlla may leen njaboot gu barkeel barkeel seen yëngute ak seen dalte lu ñu bëgg am ko fu ñu bëgg toll tollu fa ndaxte àdduna nii rek la donc euh, bés bi daal kontaan nañ ci ñu ngi ñaan yàlla njortu lii ñu am mu rafet kenn ku ne sañ sañse jóge say jóge sa kër ñëw pour euh, feete loolu ñuy yaan yàlla rek euh, yàlla def ci barke ba sëy bi dàq ko fuuf ci barke Seydina Mohamed barke bi Serigne Saliou comme ni ma leen ko doon waxee rek waa ba tey maa ngi nii rek nekk si ki nga xamante ne nag mooy sama ñaareel ah ñaareelu daay faal ñaare xaritu jëkkëram dëgg du neex moo ngi nii waa xarit sama nawle sama xarit sama jabar sama wujju xam nga kon li ñu bokk dafa bari waa léegi yow loo xam ci euh, sa mariage bi wa mariage bi ah pour l'instant moom neexagum na moom wax kontan fa yàlla kontaan nañ torop waaw. merci beaucoup maa ngay kontaan yow di la nga am te jaboot gu barkeel ci barke Seydina mën ko suñu borom def. mariage bi noo ko gisee neex na de ah. ah allah moom di ñaan suñu borom euh, def ci ñëw ji am barke ci barke Seydina Mohamed lii nag moom euh, du sens mérite la suñu raq la wax dëgg euh, jox nañu place des moyens. ñu daal ñu ngi koy ñaanal moog suñu fàllu yàlla yàlla euh, xeeb dool yi suñu borom may leen jaww ji am barke ci vaccin naa xam bët ba mu am ci turandoo ko yàlla def wasalaam jërëjëf maa dalal damaa ñëw ci bi gis fi sama jëkkër sama ma mari préféré mu ngi nii toog dëgg du neex mais tey moom dañ ñëw gain si suñu ku mag yaag kii ku mag maman sama petite sœur sama raq la ah yow yaa ko mag ah ok kon yaay kilifa gi. waaw maay kilifaam waaw loolu loolu la yàlla dogal. <laughs> léegi nag yow loo koy digal ak loo sant ak looy wax Fallou. waaw mais kontaan rek mais di xamal ne Fallou xama rek jël na sunu rakk ju baax mais yeneen nañ ko ko parce que moom it dafa baax xam nga di ko ñaanal xanaa fi mu jëm xam nga mu dem fekk fa jàmm xam nga. bañ fa am benn problème sëy bu rafet franchement parler man tey dama kontaan ba mënu ma wax kontaan naa quoi franchement aw ma dara Non, mais. Ok. Alors, c'est le régime, bien sûr, PMT, animateur à la TFM et au niveau du King FM. On est là, bien sûr, euh, pour vous tenir en haleine. L'événement de ce soir, bien sûr, avec la diva Tafa Fall, bien sûr, les jeunes mariés, future Madame Fall, Faloussar. Alors, sans tarder, on signale qu'ils sont déjà là, les mariés. Alors, on demande aux invités, à nos parents, de se lever, et puis juste après, on va accueillir les invités. Donc, on demande à tout le monde de se lever, de rien pour nous pour accueillir les mariés, bien sûr. verse 2 no. maa la wax loolu di la ñaanal jàmm salaam sama gars yi. mais léegi di leen wasi am yaatu nag ñamba ñamba bi di wax ñamba ñamba bi ndax xale yeeg mag ñeeg ñëpp jub loolu la ñu jéem a xool jiite bu baax la ñu def. après oui, la diva aussi, quelle famille nous avons fait, ça n'est quelques cadeaux, et puis juste après, nous démarrer Tinébi. sama jabar ko ragal Kutuk jabar, Kali nee nañu lu nga soxna woo axaman ma yàlla mooy daal Maria si bu la neexee